di setan seetaan cest à ay serviteur ngeen mais li may ñaan président bassou djoma jaxar fay na baye républicain yi xolal dafa bëgg voter loi projet ci ñun ñaar lanceur d'alerte <laughs> deglu la set d'alerte deglu deglu na leen baye ci tranquille d'alerte deglu bax limu la wax moi je ne suis pas un lanceur d'alerte je suis <laughs> un acteur de la vie publique de ce pays de la vie politique de ce pays demal ndànk rek demal ndànk rek eh Serigne gundou munoo ci man cent franc. <laughs> mais mais mais non déglu rek. oui kenn du la laal. déglul. maa ngi déglu. doomu aadama buy dund. munul ci aadama faal cent franc. yàlla rek. suñu borom mën ci man dara. moo mën ci ñëpp. non déglu rek. yàlla mu mën ci ñëpp. dama ne. Hmm. Serigne Goundou. Basirou Diomaye Diakhar Faye balaa may tooñ. Hmm. Basirou Diomaye Diakhar Faye. Hmm. munul ci aadama faal cent franc. d' accord xam nga ku mën ci man dara. waaw mooy Mawlaana Tabaaraka. léegi yow est yow mën nga ci moom dara yow président ba Diomaye Diakhar mën ci moom. dara na jéem ci man rek su jéemee na jéem ci man <laughs> koy répété fii. xam nga dama ne na man. non du jéem dara dara bés bu jéemee ci déglul. Hmm. damaa sangoo ci dexu Karabaan. Hmm, hmm. sambu ci dexu Ziguinchor. sangu ci géeju saint wi ak ci dexu saint wi mais tere loolu galaj bu gën a kawe nga déglu ma. maa ne déglu attentivement du ma tooñ. doo tooñ. benn. du ma sosal nit lu dul dëgg. ñaar. te ci dëgg laay taxaw. mu ñett. loolu nag su amee. waaw aw mbindaaf mbindeef bu may ragal. mbindeef. waroo ragal kenn sax. déglul baax li dama ne dama bëgg nga déglu ma. amul doomu aadama buy dox ci kaw suuf hmm. ma ragal la ku mën dara ci aadama faal defal balaa nga agsi gëna metti torop ci yow jërëjëf xam naa ngay njiitum réew kenn keneen a ca yem kenn du def dara ngay borom déglul ngay borom kurus hmm? di keneen a ci yem wax dama bëgg nga ma lay déglu. ngay borom kurus soo mënee defal mooy borom baatin laa wax soo mënee defal ngay borom zaahir soo mënee defal nit buy dund. Hmm. su weesoo Mawlaana tabaaraka mënoo ci man cent franc. mais d' accord naa mais mais pourquoi attaquer Adama Fall pourquoi def lu ñaaw pourquoi. def non yaa ko wax. non non je yow ya wax yow ya wax ni nañ ne lanceur d'alerte nañu protéger man soxlaw ma la protection divine moma gëna luma am te wallahi barke sallallahu ala muhammad hmm. yalla ma ar lu deug la yalla ar ñep non man sa bos xawma sa ko sama <laughs> suñu borom mo pek ci kaw ak ci digënté bi sama bop la am waaw naangu man ak de waaw mais sama bop la xam deug la vraiment te eh. uh-huh. bëss bu ko jiw juróom benn weer laa ko may ci bopp réew mi. mu wàcc bopp réew mi. wallaahi. du la laal du la laal Bassirou Diomaye Faye eh, moom le père de la nation eh, nekkal fi ñëpp. le président de la République Adama Fall. le président de dégg naa la. dégg naa la moom nag moom la tëkkul la menace la waxul dara nag <laughs> ah waaye na leer na dama ne ah yow mi koy wax. ma man maa ko wax. ñoom ñi may dégg. waaw ñii seetaan feneen ak feneen ak feneen nañ dagg vidéo bi neneen. waaw Adama Fall nee na. <laughs> su bëggé àggali nguuram ci jamm ak salam lay xol bayiko ni mu nekkee su bëggé mu déssé ko fi juroom benn wër bu ma laal jëm dara ci mom dara jëm dara dana ko bu ma laal waaw. tedd kay ma wax la nag. président Sénégalais yi. waaw fi mi roté lay roté mais mais beneen déglul waaw d' accord. déglul daanaka waaw. fi mi roté lay roté limi jëfëndiko lay jëfëndiko légui yeen yeen wa républicain juroom ñaari pays. ci pays yalla ya. Adama Fall waaw. ca pays yàlla ya dañ cay daje. d' accord léegi fu may daanelee mu bëgg nga daanelee foofu muy yéen. parce que nag lenn dinaa ko seedeel. mais dama bëgg dama koy seedeel seedeel lenn. mais ma laaj dama koy seedeel lenn. mooy lan kuy jaamu yàlla la. non nit ku baax la ku yeeru la dama ne. dama ne yàlla la. waaw jullit la loolu kay ñëpp xam nañ ko. léegi mën nekk jullit te doo jaamu yàlla. waaw d'accord léegi fu may daanelee jaamu yàlla léegi dama gis toujours yéen euh, foofu laay jeexale sama question mujj bi bëgg naa la da nga gis ay baatu déggu tubaab du sañse bi baaxul mais dëgg-dëgg waaye APR yéen maanaam bu ñuy bu ñuy boo leen di wax ci APR boo leen di wax ci ci ci ba Serigne kii Bassirou Diomaye Diakhar Faye. bàyyi jàmbur na non su la neexee nga ne Serigne Goundé ah. parce que ah, non di wax Ousmane bu ñu koy wax. ko wax da doon adressé ki nekk secrétaire général du parti non moo ko tuddee nag quand mais yéen da ngeen ko déggul français waaw nangam dafa gàtt dafa du sañ sañse non non non non yooyu yooyu war leen ko wax xam nga le volet vestimentaire non dañ koy togné lépp yéen waa père dañ koy togné nag des fois nak xam nga tubaab làkkum tubaab bi mom c'est un problème wax dëgg ah bon wa c'est un problème déggul inspecteur de seen payta jàll kooku ENA non non déggul français man gars yi jum nañ ah hein? non yalla français parler yalla français couramment parler wa yalla français écrit peut-être oral écrit se prendre peut-être à l'écrit il est bon peut-être ah, non non non non xam nga nak xam nga nak nit ki su ma koy jugé ma ne tubaab de soko ko déggee muy wax mais il a fait il a fait trop de lapsus quand même hmm. keroog moom làkk tubaab bi wala du du ma faute quoi. parce que non il a fait trop de lapsus. d'accord lapsus moi moi te mhm. mhm. nag te nag te nag du lu mu nàmp. du lu mu nàmp su làkkee séeréer peut être dina jub. su làkkee olof jub na. mais du lu mu nàmp. mais nak c'est un président de la République. vraiment waaw qui hein? doit qui doit qui doit maîtriser la langue de Molière couramment ah. couramment couramment. c'est-à-dire il a un français. facile il n'est pas politique il est apolitique. il a il a un français facile. waaw mom il est apolitique. Hein? il est il est apolitique non non. Démissionnaire dans le secrétaire général du pas. il est militant. Il est militant ah jusqu'à ouais. présent. Ah ouais. Il est militant de ce parti. Mais il a, il a, toujours été militant quand même. <laughs> Parce que ce que nous savons, c'est le militant, c'est le grade le plus élevé du parti politique. <laughs> Militant. Militant, c'est le grade le plus élevé. Le plus élevé. ci biir parti politique. merci nit ñi xamuñu loolu. merci beaucoup xam nga lu ma bëgg maa lay dig daje dana andi benn xam nga biram xujuloo sama xarit. dana ñëw e def ak kii ADF e and co. ku ku kaay nag. waaw nee na waa ah, waa APR yi waruñ am lu ñu wax parce que sàcc alalu réew mi ba pare di di wax. bàyyi leen bàyyi loolu su ma ñëwee toog du ko. waaw AD e eh, Birame Khoudia Lo dana ñëw ci ADF loolu su ñëwee toog du ma ko. waaw ba mu jàkkaarloo damay wax rek. waaw Birame Khoudia. sa gaa sa la de. suma xarit la c' est un secrétaire général adjoint du parti. oui. xaw ma troisième xaw ma quatrième. waaw moom. Euh, qui mérite respect. et considération au sein de ce parti-là. mais ba léegi une nomination. non non non dama ne daf ko mérité a fait, il daf ko mérité parce que ba xeex jotee dafa xeex ba taxaw jotee dafa taxaw te moo leen une expérience administrative. 30 ans la def dans l'administration sénégalaise. Hmm? waaw dama ne daf ko mérité gaay taxaw fi di gérer mo leen ko dàq fouf mais mom puisque du feug ci table di comme ñenn ñi ñu ko défé comme comme comme dambo ci de du ma tudd comme ñenn ñu ñu ko défé motax mu tok fi mu tok mais lepp lu mu am ci pouvoir bi daf ko mérité. té yéné naa ko il faut qu'on arrête de reléguer les enseignants au second plan les enseignants doivent avoir le doivent occuper des responsabilités au sein de de de tout pouvoir parce que fi ku fi out xam-xam jàngalekat le la ëpp xam-xam. bi ñam amul njëriñ nag. dama ne <clears throat> kan moo ko ëpp njëriñ biiram xujja. manam dans sur le plan dama ne sur le plan de la réflexion. oui mo leen ëpp njëriñ. sur le plan de la proposition mo leen ëpp njëriñ sur le plan de parce que il est compétent sur le plan administratif mo leen ëpp njëriñ sur le plan politique mo leen ëpp sur le plan de la communication mo leen ëpp njëriñ lum ko dégg déggoo li wax de. ma ngi lay dégg attend ma dégg lu ko am ci pouvoir bi daf ko mérité. C'est pas parce que c'est un instituteur uh-huh. qu'il ne doit pas avoir une promotion. Nañu bàyyi yooyu nañu bàyyi di jël jàngalekat yi di l'en reléguer au second plan Amon na ci nguuru Macky Sall dama ko don xeex am fi dama koy xeex les enseignants sont de très grands cadres qui ont des connaissances transversales uh-huh. qui ont des compétences requises pour diriger nañ leen boole ci mbir yi parce que mën nañ ko am nañ xam-xam bi am nañ taxawaay bi. xëy na appel à candidature dañ ko ci boole hmm. suñ defoon appel à candidature kenn du falu kudul mom. moom. muy dëgg. am nañ parce que nag peu expérience. ah oui moo leen ëpp compétence. am na compétence <coughs> xaw ma la mole ma la ëpp waaye am na compétence am expérience. bi dama ne moo peu compétence laa wax. parce que y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie ils ont été promus. waaw wala déet la. Il y a des gens qui ont été stagiaires, qui ont coté la, station de stagiaire pour être directeur général. Ils ont été promis. Lui, il n'est pas stagiaire. C'est un haut cadre de l'administration sénégalaise. Un fonctionnaire de la hiérarchie A. Il a plafonné. Hmm. Oui. Même ce n'est qu'un instituteur. C'est un fonctionnaire de la hiérarchie A. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, sagal na su ko defee sagal na instituteur. oui oui oui nek enseignant nek euh, voilà. parce que les enseignants ont des compétences autres que la craie. oui oui. fi ku fi teki ñon la. dëgg la yéen a formé procureur yi jangal a jàngale procureur jàngale magistrat yi. non déggoo ma la président de la république ki jangalé yi la motax ci suñu pouvoir yi suñu nguur yi nañu faale jàngalekat yi. <laughs> ni mu ko don casser ci nguuru magistrat ñàkk a fay daal jàngalekat yi. oui ñàkk leen faale ñàkk leen eh. jangale kat yi won leen gannaaw. dal sen daw ci kaw nguru gam dal parce que ni ñi nguru nguuru Macky jangale kat yi la am. je le dis haut et fort. Eh. aujourd'hui promouvoir Bassirou Diomaye promouvoir biram Khoudia c'est promouvoir l'enseignant c'est promouvoir l'instituteur. donc sa nomination est exigée immédiatement.

dama gis ne dama ragal naa ne def euh, euh, témoignage bi mu def ci biiram xujuloo rafet na lool te mu nekk dëgg mais dama ragal ne boo leen bokkee plateau ñu xuloo ñoom ñaar jàpp naa ne ndax bokkuñ idée bokkuñ ci gis déggoo li ma wax de waaye dégg naa la fu ñu toogee day wax xalaat